ay maam sa sëriñ la rétinopathie diabétique par la télémédecine sëñ bi ñu ngi lay nuyoo ginnaaw bi moomal bàyyi nga nuyu bokk téléspectateurs yi. maa lay maa lay maa lay nuyu di leen fay di nuyu xalif général des Layènes di nuyu kilifa diine yi Yoff ak kilifa aada yi ah, di leen gërëm daal si kii bi si initiative li nga xamni mom modi dépistage bi nga xamni xalé xale limam alayhi salatu wassalam ñoo ko organiser tay ji yow ñu fekk la dañ la fekk tay ji ban taxaway nga fara def. wa ñun euh, ñi ngi jógee falé Philippe sangor ci CDS bu Philippe sangor quoi wa ministère de la santé mo ñu fi yabal à travers Philippe sangor pour ñu def dépistage rétinopathie diabétique yi nga xamné ni diabète bi dafa leen sonal ba andi leen ay problème bët ñu bu ko défé ñu tel ka xam man ci ki quoi man leen dimbali quoi. loolu moo ñu fenn. maanaam yéen ñii yéen ay saytu yi nga xam ni mooy ñi nga xam ne dañoo am jabet euh, si si am problème bët exactement. waaw ñu si loolu la ñuy yëngat ñi nga xamante ne dañu am jabet ba pare problème suukar bi andi leen problème seen bët yi ñooñu lañ dañuy dépister quoi pour man leen kii mën leen jàppale ko mu mel ni am na ñu bëri ñoo xam ne xamuñu jabet war na man jàpp seen i bët tey jii bu fekkee dañu ñëw si consultation opportunité pour nu war ko mën a xam. waaw wax la tali tali machine bi. deux machines la fi Sénégal euh, Philippe Senghor ak euh, sant santé Maam Abdou xam nga ministère de santé moom moo ko kii moom moo ko moo ko moo ko def à travers partenaires yi quoi pour euh, pour pour xam nga kii kii la quoi innovation la si santé xam nga télémédecine parce que bu jëkkoon da ngay diabétique boo xamante ne day dem ba am problème bët xam nga duñ ko si mën a kii quoi mais léegi avec Diouf aussi xam nga mu ngi mu ngi kii quoi mu ngi changé quoi. alors machine bii nii ngeen lan mooy liggéeyam ci wàllum eh, li nga xam ne moom moo di télémédecine. waaw machine bi dafay dépister bépp feebar boo xam ne am na si bët li la ñuy wax fond d'œil mais c'est numérisé xam nga eh, buñ fi mu nekk bu ñu photo nii image yi dañ koy envoyé si plateforme bi léegi am na ay euh, professeur en ophtalmo yu koy lire comme lu mel ni professeur Mbop professeur Audrey ñu ngi nekk Abass euh, Ndao ñoom ñoo koy lire après dañuy revenir résultat yi léegi à partir de loolu si la ñuy contacter maladie mais traitement bi yëpp gratuit la comprendre après maladie maladie yi nga xam dañ leen di dépister si machine bi dañ leen di envoyé à Bax Ndaw fa lañ leen traité gratuitement duñ fay dara waaw macha allah. Ah, innovation la waa si domaine santé quoi. alors tey jii ban jàngeen nga def si dépistage bi nga xam ne xale yi Seydina Limamou Laye sallallahu alayhi wa sallam ñoo ko organisé fii nii ci pencum Yoff. non wax dëgg yàlla affaire bi man dama si kontaan quoi man man maa ngi nii deux jours maa ngi nekk de garde mais lii bi ma ko déggee xam nga dama sacrifié wu def lépp instant bi garde laa jóge nii mais dama ne il faut ma ñëw quoi parce que xam nga nit euh, nit feebar xam nga nga ñëw nga ngay def participer loo xam ne. day bokk si wér-gu-yaramam loolu dafa am solo jaam yàlla bu rëy la xam nga di leen ñaanal lii ñu gën ko vulgariser ko moo gën a kii. alors yéen ñii nga xam ne yéen nekk si wàllum euh, faj mi si wàllum wér-gu-yaram tey jii bu fekkoon na nga gis ki nga xam ne ministre de la santé et de l' action sociale monsieur Abdoulaye Diouf Sarr tey jii boo gisoon ban message nga koy jox. kan Diouf Sarr ah ku si nekk asta gis-gis mais man sama gis-gis mooy Diouf Sarr franchement parlant ah mi ngi def liggéey bu rëy parce que lii buñ ko amee aussi tamit est grâce à Diouf Sarr waaw parce que am na ci diabétique yu bari yoo xam ne dañu am ay problème ba duñ gis fuñ ko jooyee mais machine bi dépistage précoce lay def xam nga mën na mën a mën a dimbali ñu bari ñoo xamante ne tey jii dañu dañoon am problème bët te te loolu wax dëgg yàlla c'est à travers du ça si la fi kii yooyu yëpp duggee quoi mën nañu lu dul asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñu ngi nuyu waat lépp internet bi di leen wax ni ba tey ñoo ngi si consultation gratuite bi ins bi ñoo ngi si ngoon bi defe naa ni ku xool jotaay bi xam ni bëri na ay membres yu fi ñëwaat ngir mën a lii wante tey soo xoolee liggéey bi su yànjee defe naa ne ñaar ñii nii taxaw la seen mbaax ak seen liggéey soo xoolee ñii ñoom ñooy bàjjenu gox yi nekk si biir Yoff soo xoolee représentant bàjjenu gox bi nekk Laayeen moo ngi nii soxna Ndeye Samba Laay soxna Fatou Kiné Fatou Kiné Fall Ndenaat moo ngi nii defe naa ni soo xoolee ku naan Laayeen moom mooy lii bi penku bi Ndenaat mooy saw bi defe naa ni ñu dajee si pencam yëpp si digg bi defe naa ni loolu am na solo lool te soo xoolee ins bi bëri na loo xam ne comme li ñuy wax sànq si suba rek fàggandiku moo gën faju te ñoom ñoom ñoo ngi siy jéem a jàppale ngir soo xoolee tey bëri na ay feebar yoo xam ne moo ngi sonal askan wi ñoom bàjjenu gox yi ñoom ñooy xam méthode yi am si biir kër yi ndax ñooy dugg kër par kër di fa xam ñii am yi jàngoro yoo xam ne tey mooy sonal askan wi donc bàjjanu gox yooyu tey suñ ñëwee fii defe naa ni seen place dañ ko koy dañ leen koy gën a jox ndax ñoom ñooy ñooy wàcc si terrain bi ñooy xam coonoy terrain bi donc li naan terrain moom ki ko miin moo la mën a xam moo la mën a wax li fa li fa ne defe naa ne daal ñoo ngi jéggalu baax pour bañ a sori si loolu lu gàtt ñuy présenté suñu bàjjenu gox yooyu noonu ñu jox kàddu yi suñu yaay Ndeye Samba Laye mu jotal si kàddoom mu ubbee Laye Makhtar jaa ngeen jëf ne billahi mina sheytaan rajim bismillahi rahmaani rahim gannaaw bu ñu sante yàlla julli si bàyyi laay alayhi salaatu wasalaam ñu ngi ñaana sunu xalifa général yal na fi yàgg lool ala sant wér di ñaana sunu baay Ablaye yal na yàlla yokk leeram wayefal suuf si kawam di santaat yàlla bu baax si li nga xamante ne daje nañ fi tey yàlla moo def tey waa association xale yi Seydina Limaamu doon daje fi waa Ibratu seen waajur yi nag nekk ànd boo xamante ne bés bi ñoom ñoo ko woote ngir ñu waxtaan ak waa àdduna lépp loo xamante ne jëm na si faju fàggu ak fagaru moo waral bés bi ñëw lan moo waral bés bi ñëw ñu ne dañuy def consultation boo xamante ne gratuite lay doon gratuite boobu nag si pàcce yépp la soo seetee fii ñu taxaw nii tey juróom benn pàcc mu ngi fi yi nga xamante ne ñu ngi koy def si nit ñi soo seetee am nañ beneen bërëb boo xamante ne am nañ fa ñaari pàcc yoo xam ne lu jëm si mbiri jigéen ñi la si seen i bagage ba moo tax am nañ ñetti place yoo xam juróom ñetti yoo xamante ne lu jëm si paju mi la lépp loo sumba nag sim faju am na fii tey ñu ñaan nag képp koo xamante ne yaa ngi koy dégg nii sax si ngoon gi soo ko déggee mbaa nga am jot mën nga fee yëg sañu defal la ko bërëb la boo xam ne amul fay amul dara da ngay ñew ñu neexal la toog ak yow waxtaan ba sa waxtu do jot nga dugg ñu defal la dinañ fi fajj beut dinañ fi fañ bëñ dinañ fi fat def tension dinañ fi def set sa jabet dinañ la fajal mbiri jigen cancer di kol setal la lepp lo xamantene jëm na si mbir mom bi gëna neex nak moy bi nga xamantene am nañ appareil bo xamantene luy tension si beut appareil bi daf kay genn ñuy wax ne kep ko xamne soxla nga ka soo ñëwee Philippe Senghor di nga ko fa fekk waaye tey ji doo si fay ñaar dërëm ba moo tax ñu ngi siy woo ñëpp waaye dañ siy doo tim boo xamante ne ñàkk yi nga xamante ne moo jëm si xale yi ndax dafa am feebar yoo xamante ne dafa duggaat bi Sénégal muy polio bi nga xamante ne mooy feebar bi laagale xale yi ba ñuy soox te feebar la boo xam ne amul garab si la duggee après avant garab la am avant balaa mu lay dal mooy ñàkk yooyu ñu lay defal mu ñaari toxay su loolu su duggee amatul garab te bu fa jóge bu fa yegsee dafay bàyyi seket il mu am lu mu fa bàyyi ñaari pàcc la nag bii mën na nekk si say cër bii mën na nekk si sa respiratoire mu am lu mu si def ba leneen am si te loolu la ñuy bañ beneen bi mooy li nga xamante ne mooy lépp loo xam ne jëm na si jàngoroy xale yi rougeole ñu ngi ko doon ñaar ñaaree ba naan am na fi polio bi ñëw waaye am na bét boo xamante ne mu ngi si àdduna bi te nit ñi war si bàyyi xel waxuma waxi covid bi ndax a bi ñëpp xam nañ ne na waaye am na beneen feebar boo xam ne mu tudde tuberculose mu ngi si biir dëkk bi bari na fi bari goo xamante ne bëgg nañ képp koo xamante ne bëgg nga see mucc soo ñëwee hôpital mën nañ la defal test bi doo si fay ndax booy doog a ñëw téeméer nga war a fay waaye amaana nga dajee ñi nga xamante ne ñoo fa nekk comme bàjjen yi mën nañ la ko defal ñu defal la test te jàmm rek si xew ñu ngi woo ñëpp bàjjenu gox lañ nag ki ma taxaw bàjjenu gox la bàjjen na bu mu ngi dëkk ndinaat bàjjen Kumba Dieng mooy sunu présidente dafa fekk mu dem si terrain bi ak yeneen bàjjen yi moo waral ma taxaw fii jël fi kàddu ngir waxtaane li nga xamante ne moo ñu fi dajale ñu ngi nuyu ñëpp nag di ziyaar ñëpp di baalu àq ñëpp di jéggalu di jox bu baax nag suñu kilifa yi seen wàccuwaay wala seen yéeguwaay bi mag ñi di wax mooy tonton Sarr ñu ngi koy jox waa yéegukaayam ba mu gën a kawe yàlla def na nag lépp lu ñu fi wax ak lu ñu fi def si ndigal lañ ko defee si ndigal lañ ko waxee ñu ngi ñaan yàlla yàlla nu ñëpp dégg te déggee ñu xol te ba ñu déggee ay xel loolu rek laas amoon lu may sànni ngeen baal ñu àq barke bàyyi laay war may seen ay saaroo wala salaamaaleykum donc ñu ngi nuyu kenn ku nekk ci turam ak santam euh, maa ngi tudd Mame Koumba Diagne nekk présidente ASCADO ASCADO nekk amicale des agents de santé communautaire bu district Dakar Ouest bi nga xamante ne Philippe Maguilène Senghor moom mooy maison mère bi donc mais district bi couvrir Ngor

prestation mu nek ay euh, pathologie yo xamantene traité ko def la consultation gériatrique y a la consultation générale il y a la pédiatrie odontostomato la dentiste donc euh, ak euh, cardiologue bi nga plus la gynécologie donc au niveau du gynéco ñu def le dépistage cancer du col de l'utérus ak autopalpation pour le sein donc légui aussi ñu def dépistage diabète ak HTA donc loolu mooy service yi nga xamante ne tey moom la ñu ñëw offrir ko waa population bu yoof ànd ci ak association bi nga xamante ne ñoom ñoo organiser tey donc te foog naa Ibou Seyni Thiaw nekk euh, si euh, bopp bi donc loolu mooy li nga xamante ne tey loolu lañ fi indi woon euh, ci package de consultation donc loolu la ñu fi liggéey donc dañuy rafetlu déjà initiative bi nga xamante ne moom la xale yi Seydina Limaamu alayhi salaatu wasalaam jël muy ñëw dimbale seen population ci seen wàllu wér yaram wax nga ko sànq ci sa biir wax foog naa suñ ko tëggoon soirée wala ñu def ko leneen tamit dina fees ak ay nit mais essentiel bi peut-être duñ ko am essentiel bi mooy wàllu wér yaram te journée yu mel nii dafay baax pour population bi parce que man dama koy tuddee ay journée de dépistage day permettre à tout un chacun mu mën a ñëw ci activité bi mën a saytu yaramam gratuitement xëj na sax am na lu ko doon metti kër ga mu toog di ko sooxuwaale soit yorul woon lu mu demee hôpital wala ragal na dem hôpital rang bi yàgg na wala du xam fan lay jaar problème orientation et tout journée yu mel nii day am son importance donc bu ñëwee dinañ ko mën a seet da mën ko defal orientation déjà que yéen a ngi doon def ay causerie ay sensibilisation par rapport ak certaines pathologies yoo xam ne traité woon nañ ko fii tey donc dafay ñëw rek dajewaat ci biir journée bi mbooloo mi aussi waaye génn wane na ñoom franchement li ngeen leen indil muy saytu seen wér gu ñoom bëgg nañ ko donc ci kaw bi nga xamante ne moom ngeen am Euh, moyens yi ngeen ci déployer pour def ko ci aussi ah, gis nañ ko mais on dit toujours que ne santé amul prix amul njeg soo xoolee ñun association bi donc du lundi au vendredi ñu ngi si structure sanitaire yi donc samedi dimanche ñu ngi dem mottali suñu jaamu yàlla ci gox yu mel nii pour def ni fajal nit ñi gratuitement seen ay jàngoro. donc di ñaanal yàlla képp koo xamante ne ñëw nga fi indi jàngoro suñu borom moo mën saafara ñun dañuy jéem rek yàlla suñu borom saafara leen ko képp koo xamante ne aussi yaa ngi sa kër jotoo sax ñëw mais yaa ngi xalaat. sa jàngoro ji noo safara saafara yàlla suñu borom fajal lako bu baakha baakha ba yeen xalé sayna al imam alayhi salatu wassalam aussi mëno len won def lenen li parce que tur bi ngeen wuyo lolou mom motax donc comme li ñuy wax lu way di wuyo daf koy nuro donc yeen yéen nga ci yoon bi ñu di len ñaanal yalla aussi mu kàttanal len dooleel len bu baax parce que al imam alayhi wassalam assalamu alaykum ma ngi tudd Ndeye Khady Diouf xartu li kalaay séeri li kalaay waaw am contenté ak mbégte si daayira bi ni ngeen taxawé ni ngeen organiser wu macha allah yal na yàlla dool leen jàmm dool leen sutura ak teraanga di ñaanal sanga bi laay maxtaar ibu siini yal na ko yàlla doole si barke maamam si barke baayam yu tedd yi lu man ren yàlla na mel déwén lu ko ëpp ñun kontaan nañ chaque année nii lañu ñu koy defalee dinañ consulté wul xool sunu yaram kaw ba suuf bopp ba geen yëpp macha allah ku war a dem waar si docteur di nga dem koo xam ne tamit sa yaram wér na dinañ la wax dara jotu la terewul dinañ la may ay garab ay feere nga fi paracétamol xale yi ñoom ñëpp am na dentiste am na pédiatre am na général am na ophtalmologue am na collettriste am na cardiologue yooyu yëpp te yooyu tey jii bu ñu demoon tey si hôpital yu mag yi tey li ñuy fere dina ëpp cent mille francs kon nag Bichri Laay Maxtaar ñu ngi lay ñaan sa barkeem baay a sa barkeem maam Seydina Limaamu Laay yàlla na yàlla yokk yàlla na yàlla yokk yàlla na yàlla yokk si barke yonante bu tedd bi leen ñaanal yéen groupe bi yëpp ak ah, eh, staff bi yéen ñëpp ñu ngi leen di ñaan topp si ginnaawam daayira bi yëpp man sama doom mi ngi si daayira bi njaaña laay njaaña jaañ laay fan yi dañ ko doon maye Ibou Sine ñëwoon na sama yeba la fin bi passe macha allah moo tax man lu mu rek appel bi yëpp damay ñëw même lu ma nekk taalibe Cheikh ñoo bokk Seydina Limaamu da fi lañ dëkk si dëkk bi lañ dëkk fi lañ juddoo fi lañ màggee Seydina Limaamu nekk sunu maam bu du woon tarixa bi ñu njëkk a nekk dara ne te dëkk bi nu mu demee rek mais chaque année damay jënd piis nduróole kax lii ka ñu toog fi tànt bi ba mu jeex incha allah ñaana rek yàlla ngeen yokk ñoom mami laay ñoom faatu ngom ñoom ñoom njaboot gi yëpp ñoom maam njare yaa nogay ñoom ñëpp ñu ngi leen di ñaanal famille bi yëpp parce que maam farma ma sa kàmbar yéen yàlla na ko yàlla dooleel may ko wér ñun ñoom ñoo bokka a waa mboora ñoom ñëpp ñu ngi leen di sant di leen gërëm sama xol sedd yàlla na ko yàlla dooli jàmm kumba am na jàmm am na salaam yaatal na daal waaw yaatal na jéeg mooy defar ku jigéen mooy defar lu sa jëkkër baax te yaatu yow ku jigéen ki boo ñëwlee boo yaatulee rek yëf yi dem te macha allah yaatal na yaatu day ree rek amul benn problème yàlla nag dunda ba doomam bi di ko teral si barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kontaan naa laay Maxtaar. jërëjëf laay Maxtaar ji defe naa ne moom jot na saytu boppam ba pare defe naa ne di la wax ni itam koom bi nga saytoo ban satisfaction nga si am ak xale yi ñoom itam ñoom naka leen déroulé seen i wàllu organisation beeg yeneen defe naa ni. comme lu ñu doon wax sànq rek ndax lii ay xale ñoo ko taxawal mënoon nañ def ni seen i morom si biti di dem tëggi sabar wala di dem si boîte yi wala di dem tuxi ji wala di dem ginze ji wante ñu jëndaloo lépp du mooy que football ka ni que lii yëfi iblis la wante ñun sunu maam seynaa Seydina Limaamu Mahdi alayhi salaatu wasalaam yoon bi ka yàlla jiital ñun yoon boobu la ñuy topp ngir mën a naka la ñuy jëriñee nit ñi mais pas pour ñu lor nit ñi defe naa ni lii tey suñu si oowee suñu yaay dañuy ñëw kun si manti muy kilifa diine wala kun si dafay ñëw wante bu fekkoon safaanu di nga rus jàkkaarloo sa yaay naa ne xale yi naa ne tamit yow nga saytu nga saytu sa bopp xam nga bu baax itam médecin yi ak jàngoro yi nga amoon ak yeneen ak yeneen defe naa ni kon kon am nga satisfaction defe naa ne pour nga revenir ñu si na lu bref rek incha allah rabbi pour cher internet yi ñuy seetaan xam ne lii nekkul loo xam ne tey dañuy fori kenn sa mbedd ma naan kaan kaay nga defal ñu interview wante ki saytu ba gis kon kooku moo gën a xam ki saytuwul te toog këram defe naa ne daal kàddu yaa ngi noonu laay maxtaar ak ah, kay laay maxtaar li nga wax am na solo dëgg la parce que bi fi accueillir nañu bu rafet xale yi dem ba ñu ngi organiser base base bi macha allah defar indi ku nekk am place docteur yi bu ñu ñëwee placé xale yi ñu defar euh, ranger góor ñi jigéen ñu defaral mag ña ndaw ñi troisième âge surtout moom moo si gën a neex troisième âge tey jii ñu fi ñëw ëpp nañ vingt personnes mën nañ trente ba si quarante ñëpp ñëw nañ consulter waxatuma ñi ñoo xam ne ñoo man am naa cinquante ans fu mu nekk nii allah yàlla na gën a yokk nag ba yéen ñi itam yàlla ngeen am cent dix ans sans ordonnance kon xale yi tamit ni ñu organisé dañu leen di ñaanal fan wu gudd ak mucc di xam ne di laaj ñaanal seen sëriñ bi ni mu leen organisé ne jàppale leen lu rafet la ndax na xale yoo xam ne tey ñu nga si baari ni nga ko waxee ñu ngi mandi ñu ngi si na leen seen maam yi fi sawu jant moom lañ fi denca tey yëpp ñaanoon na si xale yi kon nag tey ji boo leen delluwaatee duggaat seen diine dañuy sant yàlla di sant julli si Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di leen ñaanal tamit taw feex bu rëy rëy kontaan te daal di leen wax daal sa kaw rek sa kanam su lu baax yàlla ngeen yokk ñun yàlla ñëpp a ñëpp kontaan ku ne gis nga sa bopp xale yu ndaw yaa ngi waa pédiatrie yu ndaw yaa ngi zéro ba dix ans ba quinze ans ñu ngi nii di faju man sama doom ci ñëw na fi consulté wul fan yëpp dënnam da doon métti kon lu ndaw ñi ñëw nañ góor ñi ñëw nañ jigéen ñi ñëw nañ macha allah quatre góor yi bu nekk daal ngi fi yëpp am na fi macha allah tey ji boo doon yóbbu sa bëñ rek rekki kata cinq mille nga ngay fay a jamono ji nu mu naqaree géej gaa ngi dara doxul jaww ji doxul ah cinq mille francs ngay fay nga dem si pédiatrie ti nga fay trois mille wala même chose dégg nga man cardiologue bi seet na ma léegi na ma tout normal diwlin lañ ma tere diwlin rek lañ ma tere waaw maytul lu liin te tey ma doon def ji consultation cardiologue xam nga na seer na aw ko fu mu nekk ne ngeen ñëw defalal ñu lii Eh, collectrice bi timi nol 40000 ba ay 60000 kuñ la ko defal da ngay sante yalla fi tay ji xeyma rek liñ fi waroon a man liñ ma consi tay ni sama yaram tay ji rek man na 200000 cent wala mu tek sama bët yi sax xool naa ko ba resultat yi après dañ may o jox ma resultat kon na dañ leen di sante di leen gërëm ne yëpp ko bëggoon li ka laaj ka ñoo bokk école ba ñuy liggéeyee fan yii damay tok tuuti dem ñibbi su waxe mo na man ka dama wëru damay dem toog waaye tey boo leen indeel yi dañuy sante yalla ñun ngay nga man surtout man man ngeen ka defal parce que man dama wéeru waaw macha allah ñu leen di sante di leen gërëm di leen ñaanal si barke Baye Laay mi ngeen yaakaar yal na leen maam Baye Laay taxaw yal na leen maam Baye Laay jàppale yal na leen maam Baye Laay sàmm aar leen ni yir leen si barke borom yërmande ji maama Njoon Laay sunu maam ju baax jooju ñu ngi ñaanal Baye Seydi Thiaw man sama xarit la woon Papa Ran sama xarit la Baye Ablaye Thiaw mii ne la yàlla yàlla yokk seen leer ak Cheikh Ousseynou Laay ñëpp ñu ngi leen di ñaanal yàlla yàlla yokk seen leer taasu seen barke lii daal bu leen ko bàyyee am na solo parce que a ngi seen diine xam seen diine dimbali seen waajur di leen ziar bu baax soo leen gisee jotaay bi xam ngeen ni tey dañ ñëw fii si bayal bayal bii di pencam Yoff defe naa ni xale yi Seydina Limaamu alayhi salaatu wasalaam ñoo fi organiser lu yànje yi ngeen fi gis muy wàllu consultation gratuite wante consultation gratuite boobu dafa am ñi ko sabab ñi ko sabab nag li naan tungane du teew ñuy nataal te sëriñ bi moo ngi nii agsi na fi ñëw na ngir visité di xool naka la mbir yi demee di xool naka la affaire bi toogee defe naa ni jaadu na yella na ñu jox ko moom mu nuyoo ak mbokk yi waxtaan saafonte ak ñoom jàllale message am loo xam ni tey bëgg na lim ko initié ni li naan ku initié mbir donc moom moo gën a xam bu baax volet bi fu muy demee defe naa ni loolu defe naa ni sëriñ bi incha allahu rabbi war nañu sey gën a mën a leeral pour ñu ñuy seetaan xam bu baax ni xale yi fowuñu te fowlowuñu te itam dañ nekk si diine te defe naa ni tànk diine yooyu noonu yi yi ñu jël di ko dox defe naa ni dañ bëgg a teer si yoon bu baax te moom sëriñ bi moom moo leen si initié defe naa ni ñu koy jox kàddu yi mu introduire wax ak mbooloo mi wax ak àddina bi defe naa ni ñoo ngi nuyu ñëpp di leen ziar bu baax laay maxtaar jaajëf laay ah, bismillahi rahmaani rahim salaatullahi wasalaamu alayhi wasalaamu ala malaikatillahi la hawla wala quwwata illa billah alil azim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli ah, ñu ngi sant yàlla bu baax di julli Seydina Limaam max alayhi salaam si ñaari wàccuwaayam yëpp di ñaanal sunu xalifa Seydina Mouhamadul Muxtaar Laahi doomi Seydina Mandione ji yàlla bàyyi ko fi lool mu yàgg fi lool te wér ak mboolem njabootu maam Baye Laay gi nekk si kaw suuf gépp noonu lañ koy ñaan ñaanale sunu maam Sëriñ Abdoulaye mi jiitu ak njabootu bàyyi la yàlla yokk seen dee tànn seen barke mi su barke seen ginnaaw di sant yàlla bu baax di gërëm ah, mbokk internet yëpp di leen ziara di leen baal waxate di leen baal di ñaan yàlla doole ñoo baal waaw wax dëgg yàlla ni ko maam li baas waxee rek lii moom jaamu yàlla rek la ndax yàlla moo ne bindu ma nit ak jinne du ñu jaamu ma dañ jug rek ngir jaamu yàlla ànd kaa sunu ay mbokk sunu ay yaay muy al ibratu yaay xale say naa ak daayira yi nga xam ne moo si ànd yëpp te ñëpp ñu boole leen tudd leen xale yi Seydina Limaamu ñuy préparer di def rek loo xam ne chaque année ndax école bu daan tijji jamono boobu ñu gën a nekki ndaw yori xale ñu ne nañ seet seen yaram balaa ñoo jàng ji taxu ñu daan def ay consultation gratuite di dimbali nit ñi di leen faj balaa ñoo dem di jàng ji école ndax balaa nga naam da nga fay ne balaa nga am xam-xam il faut nga am ak wér tax nañu ko daan def ba yàlla dogal nag muy daw di daw daw ba ñëw fekki décembre amoon benn année boo xamante ne ni jot ñu ko woon def sa kii ba ñu puusoon ko yóbbu woon ko décembre tabaarakallaa kilifa yi nag ne ma téyel décembre bi defe na ay ati ati at ñu ngi koy def di def lu mel nii def consultation gratuite di def son ay lumière def ay causerie di wax nit ñi li nga xamante ni moo sonal nit ñi muy feebar jamono yi weesu nag defuñu ko woon ndax mbas mi wax dëgg yàlla bi mbas mi jeexee ñu tàmbaliwaat ko ren incha allahu faj sunu njaboot faj sunu ay yaay faj sunu ay xarit faj sunu ay baay ñu bon ngir yàlla dafa ne wér fa tabaarakallaa lu leen ko jaay jënd leen jënd leen ko fa tabaarakallaa tax ñu jënde sunu sunu lépp wér ngir bëgg a ndey mën a wér baay mën a wér waaye seen njaboot gi ñu bàyyeel ñu sabablu ñaan sunu boroom ndax yàlla moo ne likuli daa in dawaawun ah, lépp loo gis muy muy feebar am na lu koy faj tabaarakallaa kon na fa tabaarakallah ni lépp looy feebar am na koy faj tax na ñu ne nañ fàggandiku jéem a faju jéem a xool suñu ay yaram lu si nekk ci ak lënt lënt ñu ñaan yàlla mu dindi ñu ko ñu si nekk ci mbaax mbaax ñu ñaan yàlla mu dolli ko moo waral consultation bi ma ñëwoon si nag wax dëgg yàlla di xool suñu njaboot gi xool nu ñu toogee xool nu ñu defee xool nu ñuy jëfee ndax suñuy docteur ñu ngi leen di ñaan yàlla gis nañ ne ñu ngi seen taxawaay njaboot gi nga xamante ne ñu ngi taxaw ñu ngi seen taxawaay daayira bi yëpp ñu ngi seen taxawaay Ah, mbokk internet yi nga xamante ne ñoo ñooy jël mbir mi ñu ngi seen taxawaay organisation bi yëpp wax dëgg yàlla gis naa ne jaar na yoon la ni ñu ko war a defee defe nañ ko ñu ngi seet nit ñi fii si suuf di seet nit ñi tamit si kaw ndax dafa am consultation yoo xam ne kenn mënu ko def si biir mbooloo te kenn mënu ko def plein air dañ koy def fu tëju foo xamante ne nii lu sutur lulu ñu ngi fay suturaal jigéen ñi di xool seen cancer de col yi des kon loolu alhamdulilahi rabbil alamin ñun nag mënuñu dara amuñu dara xamuñu dara yàlla moo man yàlla moo am si moom rek la ñuy wéer wa alallaahi fal yatawakkalil muminun si loo si loolu wéer googu ñuy wéer si yàlla moo tax ñuy jéem lii rek di ñaan yàlla mu gën ñoo taxawu gën ñoo daaral wa tawakkalu ala hayyi lladi laa yamut wéeru leen si ki nga xamante ne day dund te dee mukk te ñun ñëpp xam nañ dinañ dee kon kenn kaa fi nekk di dund te kon moom mi dul dund moom miy dund te du dee ñu ngi koy ñaan si màggaayam mu teel ñu suñu dund te defaral ñu ko lépp ñu si yaakaar yàlla defal ñu ko lépp ñu ragal yàlla daxal ñu ko defe naa daal loolu moo doon suñu tànk tey jii pour ñëw xool suñu njaboot gi ndax li nga xamante ne mu lañ doon ñaan yàlla ndax yàlla dimbali nañ si fa tabaaraka la gëm nañ ne yàlla dimbali nañ si te ku fi dugg rek sa aajo faju na fu ñu demee bay faj lu ëpp trois cent quatre cent et personnes si diir bu gàtte bi rek dañ koy sant suñu borom yaa nu yàlla doole jàppale barke bàyyi la am te dem jërëjëf jërëjëf laay Maxtaar sëriñ bi defe naa ni kàddu yi am na solo lool te macha allah defe naa ni lépp moom moo ko initié te kon kii initié li donc dañ koy ñaanal yàlla yàlla gën ka fee saxal yàlla gën ka fee bàyyi gën kaa manal gën kaa wéral gën ko yokk ay xéewalam defe naa ne bu fekkoon dañuy xaar si yenn loo xam ne ay nit yoo xam ne ay jàppale defe naa ne dina xaw a wante lépp moom mu ngi ko jël alalam bo bàyyi sacrifier temps bàyyi léppam jëndee li naan jëndee dund nit ñi ngir dundam bu fekkoon dafa dafa dafa dafay bay ngir yoonu boppam defe naa ni moom ñoo ngi koy dégg si leneen wala ñoo ngi naan tey sëriñ bi moo ngi ay million moo ngi ay ay milliards am ndax ni kii leneen ak leneen lu muy wante moom dafa du mooy lépp di jënd ka liggéeyal yàlla ak sa ak maamam bi mu jiital si yoon bi te defe naa ni moom lim comprendre loolu noonu defe naa ni moom lay xiirtal xale yi ndax maamam dañuy na nañ xiirtal xale yi si diina ji mag ñu muus ñu téye leen donc moom nekk na mag mu mag mu muus bi nga xam ne moom moo jiite xale yi moom moo téye xale yi defe naa ni ñu koy ñaanal yàlla gën kaa daaral gën kaa sàmm ba lépp li mu dëgmal si yoonu maamam bi yàlla na teer ak jàmm ba dajeeg maamam ba jébbal ka lijaasa yi mu gërëm ka taxawu ka te gën kaa sagal gën a yokk ay garaatam gën a yokk ay maxaamam ba lépp lu mu bëgg si kaw suuf yàlla na ko yàlla defal zahiran wa baatinan ñoo ngi jéggalu mbooloo mi di leen jox dig daje si causerie bi ak son et lumière beeg théâtre beeg lépp incha allahu rabbi ñoo ngi si jéggalu bu baax laay maxtaar si kàddu yi wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh